defagum ci diiru benn waxtu ñu war ko tënk ci juróomi minute bi ci jiitu mooy panel bi nga xam ne ki ko doon def mooy seexu Cheikhouna suur ci boroom daaru model doom courageux maanaam ab jàmbaar pour bañ a wax jàmbaaru fàkk tëdd gannaaw bi nga xamee ne kon delloo na njukkal euh, daayira bi alxidaaya ak ki nga xam ne mooy njiit li muy sëriñ Ahmadou Mbacke Bachir moom dafa gis ne daal daanaka dafa xaw a am lu nuroo diggante li ñuy wooye model ci tubaab ak idol maanaam daal ay référence ci loolu tamit mu jël ci koo xam ne moo tax tey mun nañ ne lépp am muy gën gi mbindeef njol màkk ci loolu tamit mu ne ki nga xam ne moo di ngën gi mbindéef li nga xam ne moom la ko yàlla suñu borom waxoon moo di ne daal moom moo war a nekk modèle pour ñi nga xam ne ñoo jullit yi képp kuy wax ashhadu an laa ilaaha illallah ah, ci loolu tamit mu ñëw ci li nga xam ne moom moo soxal bis bi tey muy bés bi nga xam ne ci la ñuy màggal beneen jàmbaaru fàkk tëdd mu di maam Cerno Biraay mbakke ndaamal daaru di ku sosoon rëkk ci Seexul Xadim te mosu koo rëkk sànq ci benn panel bi wax nañ ne mosul am juyotloo digganteem ak magam kilifaam ñu ne koo xam ne ku jàmbaare la woon waaye tamit koo xam ne daf doon muñ li tubaab di wax patience maanaam endurance daf ko amoon te tamit Cheikhul Khadim dafa waxoon ne ab njàmbaar nekkul koo xam ne dafay dem jiyaat di xeex waaye koo xam ne doom mooy yàlla benn yoon kooku mooy ab jàmbaar dañuy faral di wax nag léegi ne euh, ku yàlla baaxe moo fi am mais jàmbaar amut ku yàlla dimbale rek moo fi am kon bu ñuy xool gis nañ ne daal ki nga xam ne moom la ñuy màggal tey di ñaan yàlla ñu teew ak ay at yu bëree bari conférence bi chaque ak muy gën di yokku gëm nañ loolu parce que ki nga xam ne mooy kilifa gi am na ci ndigalu kilifa yi donc ci loolu tamit am nañ ci yàqin ne comme ni sëñ bi ne amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am alxidaaya tamit ci kanam rek lay jëm bu ñu tënkee kon ñëw ci li nga xam ne moom moo soxal ñaareelu panel bi ki nga xam ne moo ko doon def mooy éminent professeur Serigne Assane Diakhaté bu université Gaston Berger bu Saint-Louis mu ne nag thème bi nga xam ne ci la doon waxtaan muy islam ak politique nekk na ab thème boo xam ne thème bu jafe la ndaxte pour nga xool maanaam différence entre islaam ak politique dafay xaw a jafe waaye daf ko tënk ci ñetti facteur benn bi mooy politique ak valeur mu sukkandiku ci wàllu lislaam ci wàllu société ak ci wàllu république beneen bi muy politique ci contexte Sénégal gi ñu nekk waaye tamit mu jeexal ak benn cas pratique benn cas d'école ak ki nga xam ne moo fi nekkoon xalif borom daaru muy sëriñ Abdul Khoudous Mbacke yàlla yàlla lokk ay leeram te taas ñu ci barkeem euh, professeur Diakhaté ne booy xool valeur yi muy ci lislaam muy ci république muy ci société dafay sukkandiku ci lu gën a bëri ci maanaam nit moom boppam liberté waaye tamit ñëpp yem ci wàllu droit comme ni ko déclaration universelle des droits de l'homme waxee wala boog li nga xam ne moo di république française nga xam ne devise am dafa ne liberté égalité fraternité donc ci loolu mu sukkandiku ci li nga xam ne moom la euh, Seydina Omar jamono yi nga xam ne moom moo yoroon xilaafa gi ca màkkatal mukarama noonu la doon doxalee doon ko sukkandiku ci wàllu maanaam liberté mu ne professeur Assane Diakhaté li nga xam ne dafa jëm ci wàllu euh, liberté nekk na proclamation boo xam ne depuis pratiquement ay téeméeri téeméeri at ci ginnaaw ci xarnu yu ñu weesu loolu lu amoon solo lañ joxoon li nga xam ne moo jëm ci wàllu nit moom boppam ci li nu mel tamit la wax ci wàllu société ak république nga xam ne léegi dañuy gis ne dafay nekk source d'inégalité alors que mbir mi dafa war a sukkandiku ci yoon ak ci jub muy tur bi nga xam ne moom la daayira bi jël muy alxidaaya leneen li nga xam ne tamit mun nañ koo tënk ci lu gaaw mi ngi soxal ba léegi li nga xam ne dafa jëm euh, ci wàllu liggéey bi nga xam ne moom lañ euh, santoon ñi nga xam ne ñoo doon def euh, conférence bi muy ci kaawu Sénégal mu ne nag professeur Assane Diakhaté Sénégal moom dañu am problème dëgg-dëgg ci wàllu li nga xam ne moom mooy thème bi ndaxte dafa mel ni fi mu nekk nii dañu manqué repère alors que ay repère dañ koo bari lool booy xool kii nga xam ne tey moom la ñuy màggal li mu def ci wàllu diine defe naa soxlawuñu ñuy jéggaani comme ni ko président Macky Sall doon wax ay jamono bi ñuy wax wàllu terrorisme ak lu mel noonu muy lu dëggu ñu gëm ko ne Sénégal amuñu lu ñuy jéggaani bitim réew ci wàllu diine te damay faral di wax ne réew mi ku ko bëgg a taal yaay tàkk parce que réew Cheikh Ahmadou Bamba ak maam Thierno Ibrahim Mbacke borom daaru liñ fi def ku ko gisul tamit nit ñi gis nañ ko te kenn du bàyyi li nga jàpp di dem ci leneen beneen li nga xam ne mooy troisième panel bi ci tënk la rek mu ngi jëm ci wàllu maanaam njëriñ ak loraange yi nga xam ne moom moo am ci li ñuy wooyee réseaux sociaux léegi bu njëkk dañ doon wax ENTIC muy les nouvelles technologies de l'information et de la communication jamono yooyu lu bees la woon boo leen di xool léegi du ngeen gisati antique tic la ñuy wax parce que nekkatul lu bees donc nouveauté ba amatu fa muy technologie de l'information et de la communication moyen boo xam ne dañ koy jëfandikoo ngir jëriñoo ko ngir wasaare xibaar ci loolu ki nga xam ne moo doon def euh, panel bi mu di Serigne si la wax na internet moyen de communication moderne la mu ne ay eh, jamono ñi nga xam ne ñoo di américains yi seen militaires yi ñu leen di woowee les GIs ñoom ñoo ko doon jëfandikoo waaye nag dem nañ ba les années mu nekk loo xam ne dafa yaatu tasaaroo ci àdduna wërngal këpp ci loolu tamit mu ne ñoom dañ ko doon jëfandikoo ngir di doxal seen liggéey waaye gis nañ ne tamit am na gis-gis boo xam ne lislaam am na ko ci li nga xam ne moom moo soxal loolu te lépp mu sukkandiku ci ni ko yàlla suñu borom waxee mu ne booy xool ay jamono ci dëkk bu sell bii di Touba benn góor gu màgg gu ñu doon wooyee Baye Dame Baye Pathé Diop Baye Baye Moussa Diop moom dafa nekkoon li wolof di li tubaab bi wax crieur public maanaam koo xam ne dafa doon yoro otoom wala boog saret wala lu mun di doon di yëgle di sabar wala yu mel noonu ci yenn dëkk yi mais léegi gis nañ ne léegi loolu amatul nit ñi sax léegi bu nit faatoo am na ñoo xam ne duñu soxla di dem ci rajo yi par exemple boo demee réew mu mel ni Gambie ma nekkoon fa télévision bi dañuy tàgge mais Sénégal fii amuñu aada ci loolu rajo mooy tàgge mais léegi réseaux sociaux yi tax na bu nit faatoo rek automatiquement du def ay minutes ñu génne ko cas bi ci mujj mooy ki nga xam ne moo piloté première alternance Sénégal mu le général Lamine Cissé ñu ñaan yàlla xare ko àjjana ba mu wàccee liggéey rek daanaka defut ab biir ñu bëri yëg ko mu ne nag internet nekk na loo xam ne lu am solo la parce que tubaab bi ñoom dañ ko defoon ngir maanaam wàllu àdduna waaye defuñu ko woon ngir diine ba tax na kon boog yàlla bu leen di fay ci wàllu àdduna la leen di fayee mu ne tamit avantage yi bëri na lool ndaxte dafay tax ba mbokk gi ñu gën ko jokkalante rawatina ak li nga xam ne dafa soxal wàllu group yi ak li ñuy wooyee whatsapp mu ne tamit am na ñu bëri ñoo xam ne ci lañ amee ay soxna ñenn ñi tamit am ci ay borom kër parce que moyen boo xam ne nit ñi brassage dafay am pour ñu jeexal ñu ñëw ci loraange yi ki nga xam ne moo di Serigne euh, Moutala si la ne dafa mel ni paaka boo xam ne paaka ñaari boor la mun na laa jëriñ comme mun na laa lor ci loolu tamit mu gis ne loraange yi bëri na ndaxte mooy gi fi mu nekk nii bëri na waaye tamit dañu gis ne daal tax na ba fi mu nekk nii sëy yu bëri tas na parce que xëj na sëñ bi dina am lu muy nëbb ci téléphone am soxna si gis ko wala soxna si am lu muy nëbb borom këram gis ko loolu indi ay motif de divorce yu bëree bëri ci réew mi mu ne tamit gis nañ ne sutura yàlla dafa am place bu mu ko jox parce que nee na ku suturaal nit dina la suturaal ëllëg waaye léegi dafa mel ni lii su nduur naan porte presse daa bëri ñu bëri yàkkamti nañ dara xew bañ siiwal ko ci internet bi ci loolu mu ne nag fi nekk nii sax boo xoolee ci jataay bi am na ñoo xam ne li leen gën a intéressé ci panel bi tey mooy li nga gis ku bind màggal validé wala boog gàmmu validé te moom mu gëm ne daal xëj na màggal gu ñu validé yàllaa ko war a validé waaye du nekk doomu aadama leneen li nga xam ne tamit euh, moom la ñuy jeexalee mooy maanaam euh, moyen de perversion la wax nañ ko sànq ñu gis ne tamit fi mu nekk nii réseaux sociaux yi am nga dañuy faral di wax ne africain moom rawatina sénégalais lu mu ëpp sénégalais yi foog nañ ne fi mu nekk nii internet bi pour ñoom la da nga gis ñoo xam ne comme ni mu ko waxee dañuy toog bés bi yëpp duñ tala julli duñ tala jaamu yàlla ñu ngi ci seen téléphone rek taluñu dara lu loolu alors que intellectuels yi wala ñi nga xam ne amuñu jot boobu dañuy connecté wu xool liñ ci soxla li ci des ñu daal di koy bàyyi li ñuy jeexalee moo di dafa am suma benn mag bu mu doon waxtaanal fan yële pour wax rek jafe-jafe yi nga xam ne moom la société bi di dund mu ne ñu euh, yomal xiyaam yàlla subhaanahu wa yeneen nation yëpp bu yegle seen i cas day taxaw waaye bu ñëwee ci kaw Sénégal day jël see stock tellement que problème yi dafa bëri kon lii mooy li nga xam ne moom la ñu doon tënk euh, ci maanaam ñetti panel yi nga xam ne moom la euh, gan yi doon def ñu leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf